liñ leen ko waxee léegi ñu leen di fàttali nag laata loolu yéen a ngi seen biir émission bët set émission bi nga xam ni saa yooyu luñ xëyee moom mooy ñëw indi leen information yi nga xam ne moo leen di soxal di ko ànd ak nag suñu chroniqueur niñ ko annoncé léegi nag ñu jàll ci suñu deuxième partie émission ñeel nag weer gu yaram tey nag ñu dalal docteur Amadou Ba nekk ancien directeur d'hôpital tey nag ñu nar a am ak mu sekk ak moom waxtaan jëm ci weeru koor gi ak suñ ay habitudes alimentaires ak li nga xam ne tàmm nañ di ko dundee ci weeru koor waaye laata loolu euh, dañu koy bàyyi mu nuyu docteur Ba ñi ngi lay nuyu. di la dalal ci biir plateau bët set di leen sant di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma defal ma ñëw waxtaan ak yéen. Mhm. lépp lu màcc ci affaire wér-gu-yaram. Mhm. surtout ni nga ko introduire léegi. Mhm. weeru koor weer bu sell la. wante weer la boo xamante ne bii séeréer yeeg yoolaay euh, souvent seen loxo yi daf leen di ba seen biir yi yëngu. Mhm. donc euh, waxtaanee wér-gu-yaram surtout waxtaanee nutrition. Mhm. dafa am solo. Mhm. surtout que ñu bari dañuy jaawale loolu ñuy wax nutrition. ak alimentation. alimentation pàcc la nutrition nag moom leneen. am na ñeneen aussi ñuy jaawale même euh, li ñuy wax maladie. ak santé mhm. santé di wér-gu-yaram mhm. maladie di feebar gis mhm. nga suñu demee ci wolof muy gën a leer donc gis nga ay éléments yoo xam ni am na solo pour faram fàccee ko leeral ko pour euh, camper véritablement le débat. merci beaucoup docteur Ba ñu lay jaajëfal ci disponibilité bi ak euh, déplacement bi on sait que c'est pas facile ak ramadan bi mais ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu daal di jàll nag ci euh, waxtaan bi ci vif du sujet mais liñ lay njëkk a laaj docteur Ba bokk na ci le jeune. dañu bëgg a xam lan mooy les bienfaits du jeune parce que ñëpp xam nañ ni jeûne dafa am lu mu ñuy indil ci suñu wér gu yaram. xam nga suñ nee jeune mooy mm-hmm. mooy woor mm-hmm. woor dafa am ngénneel mm-hmm. d'abord ci wér-gu-yaram mu amaat ngénneel ci sunu euh, diine maanaam ngénneel ci santé bi ngénneel également ci sunu sunu foi maanaam sunu ngëm-ngëm parce que diine yëpp muy bu chrétien bi muy bu l'islam bi muy même bu judaïsme ku ci nekk am na nooy woore donc war nañ wax lan mooy woor mhm. donc su fekkente ni nit ki moom dundam mooy wut wér-gu-yaram wér-gu-yaram mooy bien mhm. donc lépp luy gàllankoor bien-être war nga ko moytu mhm. donc doon naa tooñ léegi séeréer yi ak joolaa ñi nga xamante ni dañuy topp seen ndeyjoor. ba hmm. lor seen yaram. Hmm. xam nga ku topp sa ndeyjoor ba lor sa yaram mooy dugal nga ci sa biir yaram la nga xamante ni yaram ba soxlawu ko woon. Hmm. parce que yaram li mu soxla rek mooy la nga xamante ne ni dina ko jox ca cawarte dina ko jox wërgu yaram mais également dina fexe ba suux di mën a développé wu. su fekkente nag ëpp na. tubaab mooy naan tout excès est nuisible donc lépp lu am lépp lu ëpp lor jomb mais aussi warul ba manqué parce que lépp lu manqué également mu am njeextal ci sa wér-gu-yaram donc euh, fukki weer ak benn da nga topp di lekk rek pour tabax sa yaram mm. macha allah ngay tabax sa yaram mm-hmm. lan nag jëlal benn weer boo xamante ne bi da ngay fexe ba dund mais sooy dund purger tout ce qui est dans l'organisme dindil également tout ce qui était excès dans ton organisme mm-hmm. c'est sans le c'est le sens même du jeûne faire en sorte de faire benn jet bu lay permettre lépp lu nekkoon impureté mm-hmm. wala lépp lu nekkoon excès mu wàññeeku ñal mm-hmm. nag mënoo ñàkk lekk waaye nag lekk bi moom rationné ko adapté ko ci sa ci sa wér-gu-yaram ba nga xamante ni bi benn doo loru mm-hmm. moo tax dañ lay naan bala ngaa woor sax na fekk docteur bi mm-hmm. alors seet sa yaram ba xam ne yow mi kat koor gi lu am benn jeexital ci sa yaram parce que même l'islam dafa ne su fekkee ne da nga feebar mooy woor mm-hmm. beneen bi aussi beneen asli booy comme ni ma développé léegi le jeûne est thérapeutique na ngay feebaree dem ci docteur ngay faju mu lay jox ay garab parce que garab lu dara lu dul substance chimique boo xam ne dañ koy dugal ci sa yaram mu combattre euh, germe infectieux yi gane woon sa yaram di ko yàq ànd ak les anticorps pour xeex maanaam germe infectieux ko mais corps également noonu la mel fu ne lay naan defal ci sa yaram ay produits pour que nga faagaagal euh, tout ce germe euh, infectieuse germe infectieuse si biir yaram. Mhm. mais fii aussi naan fexeel ba nga xamante ne bii lépp lu ëppoon si sa yaram. Mhm. maanaam même su dul koor mën nga ñëw par exemple nga obèse wala yu mel ne dafa jeet. c'est-à-dire que l'excès de graisse ba nekkoon ci sa yaram. Mhm. fexeel ba mu wàññeeku. mais su fekkente ne wàññeeku na. mais organes yi mën a fonctionner de manière optimale. mais su fekkente ne bouché na. bari na graisse wala yu mel mais fonctionnement ba doo ko mën a optimiser wala sax di nga mën a def ay suffoqué mm-hmm. mu am benn organe nag ba nga xamante bi dafa sensible moom la ñuy tuddee le château d'eau mm-hmm. c'est le cœur su fekkente ne kër gi bari na bari na graisse soo moytuwul nga def seconde appel euh, crise cardiaque arrêt moom si <laughs> le vocal ki li ñuy wut arrêt daal mooy dee <laughs> arrêt cardiaque. quand le cœur s'arrête on meurt. Mhm. Mhm. mais nag man crise cardiaque mooy loo xam ne daf ko gàllankoor. Mhm. ça manifeste bu boobaa mën nga bañ a dee mais gàllankoor na ko ba par exemple yaa ngi suffoqué. par exemple yaa ngi am tachycardie. yaa ngi am bradycardie bradycardie. c'est-à-dire fonctionne ba nekkatul yoon. bu boobaa nag crise la mais nag du arrêt. la conséquence maintenant mooy arrêt bi arrêt bi nag mooy synonyme de mort. parce que kër moom fu mu arrêté rek dee à moins que mu nekk benn arrêt momentanément rapidement nga def ce qu'on appelle euh, massage cardiaque massage après euh, mu mu mu ñëwaat la ko cela veut dire mm-hmm. quoi cela veut dire que simplement il y énormément de graisse mm-hmm. bon qui a bouché le fonctionnement parce que dañuy euh, jàpp également xol maanaam cœur organe la comme lépp mm-hmm. ni poumon nekkee organe ni estomac nekkee organe ni rein nekkee organe cœur aussi organe la su na nee organe la c'est un ensemble de muscles ensemble de muscles boobu ay cellules la cellules yooyu ay tissus la mhm. maanaam euh, euh, muscle la tissu la cellule la mais yooyu yëpp nag dañuy dund mhm. plus ngay def ay activités plus cellules yi di dee mais cellules yooyu di dee nag il faut nu remplacer ko mhm. donc lan moo koy remplacer sa lekk la ngay lekk ca ngay tibb des oligo éléments koy tuddee et des nutriments nutriments nekk ay protéines mhm. nekk ay glucides nekk ay lipides nekk ay vitamines mhm. bu ci nekk nag bu ci nekk nag dafa am benn jeexital ci biir yaram donc cellules yooyu di dee il faut mu régénérer wu il faut mu dundaat mhm. yii de dee dem ngi mel na su par exemple soo nekkoon fenn fu tàngoole yooyu sooy ñàq tu vas la sueur la sueur c'est une forme d'épuration voilà épuration la mais également excrétion la c'est une mhm. forme mhm. d'excrétion par exemple ni ngay demee toilette wala ni ngay deme gaanuwaay mhm. yooyu mais excrétion la sudation également est une forme d'excrétion firnde bi su fekkente ne toogal lu yàgg te sanguwuloo les pores la moo naam respiration Euh, cutané bi am fii mm. alors dootul am day mm-hmm. bloqué wu bu mm-hmm. boobaa day am jeexital soo xoolee soo sanguwul sax soo yeewoo sanguwuloo da ngay tayal tayal mm-hmm. mais foo sangoo rek nga soulagé wu mais bu lu ko waral c'est parce que seulement der bi mu ngi respiré et s'il n'y a pas de respiration cutanée alors euh, da am sa benn tayal wala yu mel respiration cutanée boobu également moo lay permettre ngay dégager chaleur interne bi nekk ci biir xam nga ni am na benn chaleur boo xam ne bi c'est interne. Mm. wuute na ak chaleur ba nga xam ne mooy ambiant. Mm. bi bi lu wër. Mm. mais chaleur boobu aussi dafa war a di mën a génn mu nekk si qu'on appelle des échanges gazeux. comme li muy amee échange ci biir yaram bi dafa war a am échange également nit ki par rapport ak der bi. ak son environnement. donc gis nga der bi ci boppam day doon un organe. de protection. C'est-à-dire que euh, la peau a une fonction de protection. Mm-hmm. maanaam mooy protéger tous les organes internes de de de de mm. bépp organe nag nekk un ensemble de muscles. te muscle comme ni ma la waxee muscle tissu la tissu yooyu c'est des compositions bi gën a tuuti bu gën a basique. Mm-hmm. mooy la cellule cellule boobu day dee. donc plus muy dee plus nga ko renforcer. Mm-hmm. c'est-à-dire nga am benn demande wala benn apport nutritionnel buy remplacer la nga xamante lii moo def mm. mais su fekkente ne lii mu ngi wàññeeku te amul leneen luy dugg gis nga bonjour les parce mm. que ça qui explique l'amaigrissement ngay mm. ngay amaigrir cela veut dire que il des éléments qui partent mais il y a pas d'éléments qui les à la longue siwo boo xamante ni da nga ko teg yow da ngay du da ngay tànk rek te doo. doo ko remplir. su yàggee si yow bi day jeex. Mm-hmm. Mhm. merci beaucoup si ah. leeral yi docteur c'est très important euh, li nga ñu expliquer parce que euh, dafa bokk ci fonctionnement corps euh, te ku ci nekk ci ñun daf ko war a xam mais tey li nga xam ni tamit bokk na ci li nga xam ne tax nañu recevoir docteur Ba ci plateau bi sànq yaa ngi koy wax ci wàllum nutrition bokk na ci parce que nutrition moom mooy ni nga war a lekkee ni nga war a alimenté wu beneen question bi nga xam ni bëgg nañu ñëw ci tuuti. tuuti moom mooy euh, parce que bu ñu nekkee pendant le mois de Ramadan on mange le matin euh, suba si euh, la plupart du parce que des gens parce que am na ñoo xam peut-être du ñu lekk le matin dañuy continuer jeûne bi ba le soir ñu dooroon lekk am na ñoo xam il mange le matin il mange le soir mais quoi manger le matin ak lekk bi ngay lekk ci suba si maanaam xëdd bi ñuy def lan lay def ci suñu organisme ak lan lañ war a mën a lekk peut-être ba woor bi du doon loo xam ne day day gàllankoor suñu wér yaram c'est le bon sens qui guide. d'abord xëdd pourquoi xëdd ak lan mooy xëdd mais xëdd da ngay lekk la nga xamante ne bi daf lay mën a préserver durant la journée la journée mhm. parce que l'organisme va rester day toog toute une journée sans pour autant mu recevoir benn apport mhm. donc war nga ko mën a préparer mu am réserve boo xamante ne bi war na ko mën a téye toute la journée mm-hmm. parce que la journée c'est des activités mm-hmm. parce que waxul la nga woor nga tëdd mm-hmm. comme ni ko séeréer yi defee xëy rek dem tëdd nelaw ñu sant njàng di defee noonu lay def seen la <laughs> boo demee Siin wala Saalum bëccëg bi dund ngi nelaw xëdd tëdd yeewu nag ba ndogu ba pare ñu bëgg a rey seen bopp ak yooyu sax noonu lañ koy defee dinañ ci ñëwaat léegi donc <laughs> xëdd bi donc. baax na nga jël ci benn aliment bi ñuy tuddee aliment plastique. soo mhm. xamee ne c'est riche en protéines mais également euh, ay produits yi nga xamante ni si calorifique dina la jox de de l'énergie parce que oto su amul carburant du daw. Mhm. am de sooy dem fi ak Thiès wala ngay dem Tamba il faut nga def mhm. réservoir plein. des aliments plastiques comme quoi exactement comme aliments plastiques vous avez dit des aliments plastiques. aliments comme quoi exactement. dem na ci ay protéines. boo xamante ne jën boo yooyu yëpp hmm, jëw yàpp jën yooyu yëpp c'est des protéines mais mhm. kooku protéine animale la mhm. mais aussi am na protéine végétale hmm. mais lépp loo xamante ni daal euh, c'est riche en protéines c'est riche en protéines maanaam day tabax mhm. lépp luy tabax soxla nañ ko docteur yan aliments ñoo riche en protéines lan la war a peut-être gën a privilégier le matin yan aliments ñoom ñoo gën a riche en pour ñu mën ko lekk le matin. mooy li ñu wax léegi. Mhm. su fekkente ne protéine euh, animale la. Mhm. Mhm. mooy lép lu jóg jóge ci liy dund. maanaam ci ay mala wala yu mel noonu. protéine végétale mooy lépp loo xam xamee mu ngi jóge ci euh, ñuy wax euh, les végétaux. naka lañ koy waxee. les plantes ci plantes yi wala yu mel noonu. ay choux ay salade mhm. euh, lu mel ni ak yeneen ak yeneen mhm. mais lu tere aussi da war a mën a naan mhm. parce que les éléments les aliments la ne contiennent pas seulement que ay euh, nutriments yu nutriments mais en même temps dañoo contenir ce qu'on appelle des éléments minéraux élément minéral nag bu ci gën a fës mooy ndox parce que notre corps est composé de soixante-dix pour cent d'eau 30 pour cent rek mooy matière solide li ci des yëpp et même cette matière solide également c' de l' hmm. euh, azote. boobu mooy su yàggee kii day day day day hmm. donc dans la journée comme dootoo lekk da nga ne man damay def benn jet boo xamante ni bi damay wàññi. Euh, lépp loo xamante ni apport nutritionnel la woon. Hmm. mais war nga ko mën a préparer. ci ci xëdd bi. ba dans la journée que tu sois productif. Mm-hmm. puisque l'être humain également le sens d'être une ressource c'est le sens de pouvoir produire. mais su fekkee nag tu na pas l'énergie tu n'as pas l'énergie mais doo mën a produire. Mm-hmm. Mm-hmm. donc cette énergie la da ko war a préparer comme ni ma la oto buy tukki kii voyage looy ménage sa monture. donc voyage la xëdd bi. ba ci ndogu li c'est un voyage donc une journée boo xam ne bii doo jël carburant mm-hmm. doo jël de la matière mm-hmm. donc te da nga war a produire pour produire tu dois être en activité mais pour être en activité il faudrait avoir et le savoir et la capacité mm-hmm. su fekkente nag yow ah, amoo réservoir bi mais nag ngay may amee capacité pour agir même su fekkente ni am xam am nga xam-xam bi wala am nga engagement bi wala am nga détermination bi mm-hmm. donc tu prépares à t'activer dans la journée véritablement sans compromettre ton organisme mm-hmm. léegi nag ca ndogu la ca ndogu la war nga mën a waxulu la pour nga rattraper mm. parce que tu naa rien perdu mm-hmm. parce que c'est important foofu une volonté le jeûne c'est un acte volontaire de foi mais nag sooy demee bay ndaw mais néew na la il faut rattraper le temps perdu parce que tu n'as rien perdu le temps perdu ne s'attrape jamais. important pour euh, ñoom Cheikh ak ñoom Maimouna. incha allah ak ñoom Rama ñu sant Fall. voilà pour ñu mën a xam. non dëgg la la man xam nga fan laa bëggoon ñëw mooy ci wàllum estomac. parce que à chaque fois bu weer koor jubsee rek nit ñi dañuy jàmbat dama am estomac donc waruma woor est-ce que loolu day indi ay gàllankoor ci weer koor. Ah, dinañ ci ñëw. Mhm. mais continuer ci question ba de. Mhm. après ñëw ci yow. Mhm. donc nañu jàpp suñu xel ne. autant xëdd bi. pour am réserve la dans la journée et pour rester productif c'est important mmh. parce que l'être humain doit être productif mhm. donc il doit avoir euh, la capacité et l'énergie pour véritablement s'activer et produire et contribuer bien sûr au développement mhm. de soi-même et de sa société mhm. mais après la journée maintenant de jet vient maintenant Euh, la rupture rupture boobu mooy arrêté jet bi nga doon def mhm. mais commencé waat lekk mais commencé waat lekk bi ce n'est pas de remplacer ne damay damay rattraper li ñu doonoon il ne s'agit pas de rattrapage il s'agit simplement d'une reprise mhm. de l'alimentation reprise de l'alimentation bi aussi mooy lekk la nga xamante ne bi sa yaram laaj na ko te sa laaj sa yaram attan na ko est que je me fais comprendre mm-hmm. Mm-hmm. sa yaram laaj na ko c'est-à-dire la demande énergétique de l'organisme nga satisfaire mm-hmm. mais li mu demandé wul soo ko ko joxee yaa xëy tooñ nga ko nit kii li mu soxlawul soo ko ko mayee lu mu koy jëriñoo mais sinon daf koy encombrer donc respecter sa demande de manière rationnelle mooy yaxanal lekk bi xam également laka ngay lekk mhm. par rapport ak sa yaram mhm. kooku mooy tuddee simplement la rupture mhm. parce que euh, période la woon boo boo boo boo dul woon lekk ak période de reprise de l'alimentation pour encore un moment mais rupture également warul a tere nelaw rupture warul a tere nelaw puisque euh, le sommeil nocturne est réparateur ça aussi je le précise. Mm le sommeil nocturne. nelaw guddi. donc réparateur c'est-à-dire lépp lu yàqoon ci sa organisme xam nga ne woon naa la cellule yi dee dañoo war a kii mhm. c'est la période de reconstitution des cellules. Mm -hmm. parce que c'est c'est un moment de repos et de reconstitution. Mhm. dinañ ci ñëwaat léegi. mais le sommeil diurne. xam nga fële c'est réparateur. mais mhm. fii le sommeil diurne est destructeur. guddi de bëccëg ngay nelaw. la nga yàq ci sa yaram moo ëpp la nga ca defar. Mhm. c'est destructeur moo tax. c'est important. Mhm. Euh, la sieste. Mhm. n'est pas un sommeil. la sieste c'est simplement un repos de quinze minutes. différent du sommeil. doo nelaw da ngay tëdd rek récupérer et puis sa organisme yëpp ne teg pendant quinze minutes su weesoo quinze minutes nekkatul nekkatul sieste. maintenant pour répondre à votre question directement sur. Euh, le prétexte fallacieux alors euh, de certains paresseux wala ñu dinaan dama amee estomac ban doomu aadama moo amul estomac mm-hmm. tout le monde a un estomac tout à l'heure je vous disais que le cœur est un organe comme l'estomac mm-hmm. comme le poumon comme comme le rein et cetera le pancréas ak yooyu yëpp donc naturellement nit ku nekk am na estomac mm-hmm. léegi nag lan mooy liggéeyu estomac su fekkee ne dañuy naan xol c'est le château d'eau mm-hmm. de notre organisme c'est-à-dire foofu la échange euh, gaz bi di am mais autant au niveau de l'estomac foofu la ñuy ne euh, foofu la ñuy toggee ñam bi nga lekk parce que la nga lekk c'est brut xam nga sànq nee naa la il ne faut pas confondre l'alimentation et la nutrition mm-hmm. am de mm-hmm. l'alimentation et la nutrition kenn waru ko kii l'alimentation mooy lépp loo xamante ni c'est comestible lépp loo xam ni war nañ ko mën a lekk et puis sans danger. Mhm. pour notre organisme c'est ça l'alimentation mais la nutrition maintenant c'est la sélection justement dans cette alimentation de produits qui contribuent à la reconstruction mhm. ou bien à la préservation de notre organisme maanaam tànn ci li amal yaram bi njëriñ donc on s'alimente à travers la bouche aliments yi dugg au niveau de l'estomac ak en passant par le sauvage mais su ñëwee maintenant ci estomac bi estomac bi moo koy njëkk a togg maanaam moo koy njëkk a dëmb donc estomac moom du du arrêté day triturer rek moo tax ñu lay naan euh, dinaa tooñaat séeréer yi. c' lekk lu fees. Mhm. mais su feesee soo moytul su fekkente ne phénomène de trituration bi am na au niveau de l' estomac mais soo moytul nga géex. soo moytuwul nga wàccu. parce que le trop plein a tendance à sortir. moo tax souvent soo jeexee walla yu mel noonu ngay am un sentiment d'aigreur. ay wextaan parce que effectivement te euh, ay ay suc gastrique ak ay suc biliaire ak yeneen kii yoo xamante ni acide la yuy fekk ci aliment bi nga lekkoon mu toggat ko foofu ci biir kii bi su ko toggatee ba pare nag mm. boobu lay jaar ci pylore bi. dem ci intestin bu bu sew bi mooy intestin grêle mhm. avant maintenant muy dem ci colon bi mooy intestin bu mag bi bu paree nag foofu mu am lu nu mucc mu dem ci ci ci ci gaanuwaay yi mhm. mu am beneen boo xam ne bii day dem directement euh, ci ci ci toilette donc gis nga c'est mhm. bien sélectionné c'est ça l'appareil digestif mais maintenant nag nit ñi su ne damaa amee estomac rek mooy au niveau de cet appareil là peut-être am na góom une blessure gis nga ni ngay amee blessure fii noonu ngay amee blessure mhm. foofu puisque foofu on magasine na emmagasine tout ce qui mhm. entre dans la bouche mhm. à travers la bouche lépp lu dugg fi fa la jëm fa mu am loo xamante ni c'est piquant c'est déchirant wala c'est tranchant wala yu mel noonu ak yeneen ak yeneen wala sax naanoon nga lu sedd encore gis nga beneen comportement naanoon nga lu sedd guyi nga jékki-jékki rek nga teg ci lu tàng ah oui dafa am benn phénomène chimique boo xam ne dafay créer moo am benn déchirure. Mhm. docteur man su ma ndogoo ndox bu sedd laay privilégié man à chaque fois moom su may. docteur su may kii <laughs> ndox bu sedd laay. laa ko laaj du yow rek. loolu. ñu bari <laughs> ñu bari kon léegi d'accord nga lan mooy estomac. Mhm. nit ñi suñu naan la estomac c'est simple en terme galvaudé c'est-à-dire que au niveau de cet organe qui s'appelle l'estomac mm-hmm. am na benn blessure bu fa nekk su fa lu wex duggee mm-hmm. alors mu saf mm-hmm. soo amoon fii góom soo ci tegee kaani wala leneen mu mu saf loolu la ñuy tuddee donc da nga ko war a simplement def benn pansement gastrique wala pansement nangam nangam mm-hmm. alors mu wér ko am na ay garabam mm-hmm. ya nga xamante ni mën nañ ko faj na sa problème boobu problème bépp Sénégal mm-hmm. <laughs> non seulement taaj ay ñam yu baree baree baree baree ba dootoo xam ban nga cay tànn euh, dressé euh, euh, léegi nag point bu point waaw mu am <laughs> jaxasoo parce que y des aliments aussi incompatibles dans l'organisme yow léegi lu sa xel mooy lekk mais sa bët mooy lekk mm-hmm. te da ngay naan bu ma ci kenn ëppale mm-hmm. là aussi c'est dangereux mm-hmm. moom lañ tuddee jiiroo yow yaa ngi jiiroo ci sa xel te bàyyiwoo xel ci sa wér-gu-yaram xam nga c'est dangereux bàyyiwoo xel ci sa wér-gu-yaram mais yow yaa ngi jiiroo cest à yow na biir bi fees rek bu la ci kenn ëppale alors donc yaa ngi jaxase ñam la première conséquence mooy soo moytuwul nga am nausée. Mm-hmm. nga wàcc. la deuxième conséquence mooy incompatibilité bi am ci bi au niveau de l'organisme. Mm-hmm. également c'est un problème. nun ñëpp soo parce que on est tellement éprouvé la journée que rapidement da ngay damay jël ndox mu sedd. oui xam nga mu ngi mel ne euh, sama benn waay mu doon ne. mais noonu taawu temps Covid bi da lay naan del naan ndox mu tàng ma ne mooy naan ndox mu tàng. boomul suukar. <laughs> Eh, ndox mu tàng même <laughs> mu gën garaw encore tàng moo waxin la. ndox mu tàng <laughs> may. c'est de l'eau tiède. exactement ndox moo xam ne vraiment yow. mën nañu ko naan ko kii. Mmh, café wala yu mel noonu. ndox mu tàng la. mais baxal ndox bu ngeen doon. docteur su la nee ndox mu sedd. Mhm. mais du ndox moo xam ne dafa glacé. Mhm. ndox mu glacé mënoo ko naan. man lay naan firnde bi doo ko naan d'un trait. Mhm. naan ko sooy ndogu tey essayé ko jëlal doo glacé nga teg. doo ko naan d'un trait. nag daan koy siroté di ko siroté di ko siroté lépp di dugg sa biir. nga pare nga gis léegi. café booy teg café benn kafe bu neex. odeur bi dugg la rek est-ce mën naa ci ñam. nga ñam ci mais ndox mu tàng ndox mu tàng boobu fekki. ndox mu sedd sedd la mais imagine la conséquence. gis nga alimentation lekk du dara lu jiitalal d'abord sa xel. Mhm. sa xel moo lay wax. Mhm. lan la sa yaram soxla parce que. lépp loo xamante ni lii répondre aux besoins de ton organisme gâchis mm-hmm. mm-hmm. la et danger mm-hmm. je me répète tout ce qui ne répond pas aux besoins de l'organisme c'est un danger et un gâchis pour ce dernier donc état d'esprit la bon sens état d'esprit bon sens moo lay permettre nga am une bonne alimentation Et cette bonne alimentation qui répond aux besoins de ton organisme mm. répond maintenant à la nutrition. Mm. Amour, une bonne nutrition et une mauvaise nutrition. La nutrition, c'est la nutrition. Mm. C'est-à-dire, c'est la qualité alimentaire qui apporte seulement les éléments nutritionnels dont l'organisme a besoin. Euh, fi mu bëggoon ñëw parce que am naa temps bi mu ngi dab sama mbokk bëri laay laay mhm. waxal quoi ñoom laay dimbali sama <laughs> mbokk bëri ah, parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo féete surtout côté Tamba ak comme Kédougou euh, comme Mariama Diallo bi nekk Kédougou ñoom dañuy souvent bu doj jotee dañuy teg yëpp mais duñu xam ci lan la ñuy njëkkee ak tàngaay bi bu leen jàppee suñ dogee rek dañuy jël ndox bu sedd bi rek naan mais ki nga xam ne dafa woor ba ngoon jot lan lañ ko recommander pour que bu dog jotee mu njëkk ko mm. utiliser ak ban temps la war a toog pour mën ci teg leneen ak leneen ak leneen nan lañ mën a war a mën a hiérarchiser lekk yi nga xam ne mbokk suñ mbokku pël yi ñu ngi koy teg seen kanam xam nga déjà mm. lekk rek effort la mm. am de mm-hmm. lekk effort la donc dafa am fu muy commencer ak fu muy mujj Mm-hmm. donc il faut il faut planifier. Mm-hmm. gis nga ni ngay planifier sa activité yi. Mm-hmm. mais lekk aussi da nga koy planifier. c'est-à-dire il faut manger modérément. <laughs> effectivement c'est du plus simple. au plus compliqué. mais mënoo commencé le plus compliqué nga mujj bëgg a mujjee le plus simple. est-ce que xam nga ni il est recommandé. de manger le fruit avant de manger le plat de résistance. mais ñun fii fruit la ñuy mujjee. contradictoire gisoo ne da ngay lekk ba pare soog a naan ndox mais soo lekkee ba pare nga teg ca ndox mais la nekkoon ci estomac ba day tas moo tax naan même soo lekkee ba pare marque une pause avant ngay naan avant de boire mais njëkk naan ba pare soog a lekk encore c'est mieux que le fruit le fruit est riche en vitamines xam nga lan mooy rôle vitamine le fruit est très riche en vitamine xam nga luy rôle vitamine mm-hmm. c'est là euh, mu wuute ak les légumes parce dafa am fruit am légumes mm-hmm. vita légumes yi c'est presque de la protéine mooy élément plastique yi ma la doon mm-hmm. mais su fekkente ne fruit bi vitamine la le rôle principal de la vitamine gis nga boo leen si mais yow sa lekk bi amul vitamine la vitamine c'est simplement un élément protecteur day protéger les autres nutriments pour nu ñëw remplacer la cellule morte mm-hmm. moo tax soo njëkkee ay fruits la mel noonu mm-hmm. yaa teg nga laytaay je me fais comprendre mm-hmm. tegtal lay taay cest à nga la nga xamante ni moo ngay lekk mm. maanaam jiital nga ay vitamines léegi aliment protéides yi glycé euh, nu mu tuddee encore. Euh, glucides yi ak lipides yi lipides yi mooy lipide mooy lépp lu niin glycide mooy lépp luy énergie mm. protéine mooy lépp luy tabax je me fais comprendre. Mhm. évidemment gis nga ni mu yombee. protéine mooy tabax glucide mooy énergie lipide mooy. niin mooy lu niin maanaam oto bi day am carburant day am huile day am ndox ndox les organes du véhicule war a mën a articuler normalement pour daw mhm. mais su fekkente na amul huile la frottement des différents organes mais mën na indi ay effritement wala yu mhm. su demee ba mu sclérosé wala mu am yeneen jeexital donc gis nga ces trois éléments la am na solo ci biir ci sa biir yaram mais lay laytaay bi mooy la vitamine vitamine boobu soo ko laytaay ba pare nga lekk de manière modérée mais su la nee modération également waxunu la simple modération c'est pas ce qui est simple mais la nga xamante ne la lu baax la lu am njeexital ci sa biir yaram mhm. euh, par exemple on donne un kii un bureaucrate par exemple vous êtes deux journalistes kii c'est une femme de terrain moom day dem di def ay reportages mhm. mais yow tu es une femme de studio mhm. donc tu es sédentaire est-ce que vous dépensez toutes les deux la même énergie non kii di daw ci digg caravane yeeg elle a plus besoin d' énergie. Mhm. que yow mi nga xamante ni da nga toog. donc société bi ngeen di ndogu yow la ngay soxla. ca ndox. Mhm. la ngay soxla ca sucre. boobu la kii nga xamante ni moom il était sédentaire il n'a pas perdu. autant de cellules que toi. yow tu as dépensé plus de cellules plus d' énergie. que celle-là qui mhm. était sédentaire. je veux de simplement que ci sédentaire. ak ki nga xamante ni ki n'est pas sédentaire ils n'ont pas les mêmes besoins mm-hmm. or je vous avais dit ca njëlbeen la nutrition c'est simplement une réponse alimentaire mm-hmm. aux besoins de l'organisme cest à travers notre alimentation lan laa ci war a mën a jël luy méngoo ak la nga xam ne sama yaram laaj est-ce que c'est important docteur. ndogu également noonu la. su lay naan njëkkeel tàndarma. c'est parce que simplement la date est très riche en fibres nest pas. mais également très riche en sucre. foofu du sucre bi léegi mais c'est simplement. Euh, dafa am saccharose am fructuose. boo xam ne bi ci fruit bi lay jógee. boobu mooy tàndarma bi. bokkul ak saccharose ba nga xamante ci canne à sucre la mm. c'est important merci beaucoup Ibrahima euh, merci docteur euh, question yi sax desoon na li ñu bëggoon waxtaanee des na mais temps bi moo ñu xooj xam naa une prochaine fois bu fekkee euh, c'est possible ñu ñu amaat ñu amaat beneen waxtaan ci biir émission parce que c'est très important parce que bëggoon naa sax ñu ñëw ci peut-être ni ñuy lekkee maanaam sucre bi ñu utiliser pendant weeru koor parce que boo gisee en général sucre la ñuy utiliser le matin le soir aussi on mange du sucre ana naka la ñuy def peut-être ba consommation sucre boobu peut daal di koy wàññi wala ñu daal di xool nu ñu ko nu ñu xool nu ñu ko defee daal ba duñu ba duñu lor loolu ba tey peut-être ci suñu yeneen i jotaay dinañ ci gën a waxtaan jërëjëf docteur ñu bàyyi laa nga tàggoo ak mbokk internet yi. sant leen gërëm leen. kóolute bi ngeen am ci man. pour ma ñëw waxtaan ak yéen la mooy la nga xamante ne bii bépp doomu aadama mën a def. bu mën a jëriñ askan mhm. du maye alal wala yu mel mhm. ba nga am ci xam-xam mhm. nga partagé ko da ko war a mën a séddale c'est là où je dis que il n'y pas plus généreux que l'enseignant un enseignant cupide n'est pas un enseignant sant leen gërëm leen je suis à votre disposition merci euh, beaucoup euh, sama xarit la sama am di jàmm fu ma woo ma wuyu. Mhm. désormais également boole naa leen ci sama famille. merci beaucoup c'est gentil docteur Maimouna. Maimouna ndax sama sama soxna ni mu taaroo noonu nga taaroo. <laughs> macha <laughs> allah am na solo euh, j'espère que li ñu leen indiloon neex na leen euh, docteur euh, ñëw tey docteur amadu Ba ñëw ngir nag peut-être baaxee ñu laajee ñu biir ci yenn ponk yoo xam ne peut-être mën nañu amal njariñ ci weeru koor bi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ci te koor dafay ànd ak peut ak yenn yi nga xam ni dañ ko war a respecter jëm ci suñu alimentation merci beaucoup mbokk noo yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye loolu damay bàyyi eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci plateau bi eh, Maimouna Cheikh ak eh, bi ñu tàggoo Maimouna comme à chaque fois ci yow laay tàmbale <laughs> merci beaucoup à demain incha allah merci beaucoup di jaajëfal docteur Ba mi nga xamante ni toog na fi jox ñu fi ay jàngat yu am am solo ci suñu wàllu wérgu yaram mm-hmm. di remercier Ibrahima ak Cheikh mi nga xamante def nañu fi ay analyses yu mm-hmm. na donc di jox di daje askan wi ba ëllëg incha allah. Mhm. merci euh, may mu Cheikh ba kañ comme que yow parfois <laughs> yenn saa ñu gis la yenn saa duñ la gis. ci fantôme loolu moo tax ngeen may gis parfois parfois du leen may gis. voilà chroniqueur fantôme liñ doon wax élève fantôme. kon <laughs> nga bippe ko mu ñëw. voilà ba kañ incha allah. vraiment di la remercier yow tamit si présentation bi di remercier Maïmouna déjà di remercier docteur ji fari il devait commencer par remercier docteur mm-hmm. d' abord pour sa disponibilité mm-hmm. d' abord ensuite si enseignement yi nga xam ne jàngal nañu ko si plateau bi les bienfaits du ramadan mm-hmm. ak nan lañ war a comporter en période de jeûne lan lañ war a lekk lan lañ warul lekk di la remercier si réponse pertinente yi nga si apporté di remercier Maïmouna aussi tamit di remercier Ibrahima di remercier les téléspectateurs ak ñi nga xam ne jàpp nañ ci émission ba mu yemb les caméramans René ak Fatou la régie di remercier les téléspectateurs di leen wax à demain incha allah. merci beaucoup Cheikh à demain incha allah j' espère que la gis. incha allah bu ba yàlla Ibrahima à demain. jërëjëf à demain incha allah di bu baax euh, docteur Ba. vraiment c'était un plaisir ñu partager moom plateau bi mm-hmm. euh, idées yi leer na réponse yi leer na je que permettre na pël yu bari ñu mën a xam na la ñuy demee si koor bi parce que ñoom dañuy topp seen loxo yi rek souvent donc ak ñu sant ñaar di ko jaajëfal bu baax a baax a baax aussi <laughs> di ko wax ne ko xam naa dinañ ko invité waat mu gën a leeral parce que question yi bëri woon mm-hmm. demande yi aussi bëri na mm-hmm. donc dañuy xaar beneen yoon rek ñu gën ko yaatal mm-hmm. di ko jaajëfal bu baax a baax vraiment di jaajëfal Cheikh aussi may mun na yow itam euh, Rama di la jaajëfal bu mm-hmm. baax a baax mbokk internet yi aussi ñu leen di sant di leen gërëm ci topp gi ñu topp évidence di sant aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon si technique bi les caméraman caméraman aussi ak ñi nga xam ne ñoo nekk si technique bi di leen jaajëfal di leen wax ba suba ak jàmm mm-hmm. merci beaucoup Ibrahima à demain incha allah euh, comme ni ko Ibrahima waxee léegi rek euh, docteur Ba dinañ ko recevoir peut-être yoon ngir yenn euh, question yi nga xam ne am nañ ko ñu gën koo yaatal bu fekkee itam am ngeen ay question yoo leen ko bëgg a euh, euh, ngeen bind ko via YouTube parfois comme ni muy demee nii rek en direct ngeen bind ko peut-être ñu jàllale mhm. li ngeen bëgg a wax en direct ngir docteur Ba mën ci jot docteur Amadou Ba lay wuyoo ku ko bëgg a jot nag mën nga ko jot ci 77 500 567 93 19 567 93 19 docteur Amadou Ba heure boo leen ko woowee rek di ngeen ko jot ngir peut-être yi ngeen di soxla yi ngeen ko bëgg laaj il est à votre dispo il est à votre disposition euh, ñu leen di jaajëfal nag mbokk yi ci seetaan bi ngeen ñu doon seetaan waaye laata lool dañu remercier ñu nekkoon ci partie technique bi ah Fatou euh, René euh, Massamba di remercier Abdourahmane ñëpp ñi nga xam jàpp nañ ci émission ba mu yemb ñu daal di remercier itam Kumba pour le maquillage ndax moo tax a chaque fois suñu kanam yi di yànj wax Rachida namm nañ ko moom moom itam euh, na ñëw ñu daal di koy gis ci koor gi parce que koor gi <laughs> Cheikh parfois day am ñoo xam ne di nga toog ay jours doo leen gis loolu daal jaaxal na ma. Eh, mbokk ma si <laughs> jaaxal na ma genre Cheikh xam naa Ramadan oblige mbokk yi ñu leen di remercier di leen jaajëfal euh, ci seetaan bi ngeen toogoon euh, di ñu seetaan ci biir l'évidence TV émission bët set di leen jox nag di daje suba incha allah d'ici là passez une bonne journée au revoir.